nekkatul usine de Mame Ndiaye nañ ma xaar grand retour man pour man li ma jàppoon mooy combat cinq jours sax war naa ko mun a jël man nag euh, Baba Diakhal bu ma ko joxoon kooku moom a gënal quoi nañ ma ko wala Ardo. wala Ardo xam ne ñii war naa bëri ak ñoom. Baba Diakhal diisul si yow. man benn mbor diisul ci man. bari nañ kii Big Diop. waaw big maam big Diop combat la naa waaw pare naa pour bëre ak ñoom de na boo gisee ma jël sama bopp tuddee ko Mame Ndiaye Savon man jàmbaar laa. acca asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan seen site bi di wasaare làmb amatu tañ mbégte ak kontaante seen bi nga ñu gisee fii ngeen xam ne ñu ngi dali fort kan lañ seet si fils de Mame Ndiaye Savon du samay wax moom moo ko wax moom lañ ñëw seet si tey nar a waxtaanee li nga xamante ne moo di làmb. nar waxtaanee li nga xam ne moo di saison bi mbër naka lay préparer pour saison déwén ndax moom mi ngi entraîné ak lan moo tax mu changé turam jógee si usine technique dem tuddee boppam Mame njaay Savon te loolu la ñuy waxtaanee ñu ngi toog ak mbër bi dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo ñu daal di dugg si waxtaan bi mbër ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay waa Wassare Lamb ginnaaw bu ñu sante yàlla jur ci yorante bi may sant sama ñaari waajur di sant sama y bu baax a baax a baax. di sant waa Dalifor di leen nuyu ñoom ñëpp di bëggee ñu fi teew di leen sant bu baax a baax jaajëf. yaa ngi waaw maa ngi sant yàlla bu baax kay. naka ñu ngi ci kawam. waaw. fan la combat yi toll. Ah, wax di bàyyi rek. waaw. ñaata combat nga am. man huit combat laa am. waaw. ñaata victoire ak ñaata défaite. man six victoire laa am. waaw benn défaite ak benn sa euh, par décision arbitre. waaw kan ak kan nga daan. man ñi ma daan ñi ma daan ñi mun naa leen man ku ma daan nag fàtte naa la de bu ma la daanee rek bàyyi naa la ci ginnaaw. waaw loolu la quoi. sa dernier combat dañ la dóor nga daanu. sama dernier combat <laughs> ah waaye yow dóor mu daanu loolu mooy la man mbor du ma humilier ci lamb kenn du ma dóor ma daanu. kon sa dernier combat nu mu demee. dañ maa daan rek. laa daan wala dañ la dóor nga daan. dañ maa daan waaw. saison bi tëñ na ndax ngay préparer saison déwén. ah ñu ngi ci entraînement yi rek làqu suñuy ruq rek ne foofu di entraîné waaw di waajal loolu la quoi. Mhm. saison déwén bi dañuy xaaraat beneen fils de Mame Ndiaye Savon nekkatul usine technique. non nekkatul usine technique fils de Mame Ndiaye la nañ ma xaar gara retour nag mooy am retour bu mag a mag a mag a mag na ko xaar waaw waaw. noo coow jiwul ne ko gaay yi xaar rek xam ne kii nekkatul usine technique fils de Mame Ndiaye la bu tàng jir vraiment tàng jir instant yi gi waaw ginnaaw bee yaatu li ma ñàkkoon ci bu yëpp yëpp yëpp dama koo am instant yi waaw looloo tax. kon instant bi sa waa koñ seen xel war na mën a dal ci fils de Mame Ndiaye Savon. non seen xel dal na chaque jour ñu ngi may woo ana combat yi ana combat yi ñu ngi woo chaque jour ndax ñoom xam na ne instant yi mbër pare na pare na waaw. moo toll ci entraînement yi. entraînement ah ñu ngi ci kawam rek bu ñu xëyee ñu ngi dem entraînement waaw ngoon maa bi ñu ngi dem muy loolu waa euh, est-ce que ba saison bi tëjee ba léegi yaa ngi entraîné sax. ah lam mooy sama métier nag bu ma entraîné wul gars yi laaj ma. mbër xam naa te maag yow xoolal fii ñu lay seetaan man ak yow ñoo bokk koñ bi moo tax dama la koy laajaat est-ce que ba saison bi tëjee ba léegi yaa ngi entraîné. lamb moo tax ma bàyyi lépp lamb moo tax ma bàyyi jàng bàyyi lépp concentré wu ci lamb kon lépp lu mu laaj rek naa ko def incha allah. ñaata def. essai boobu ñaar rek laay def. waaw ñaar rek laay def. saison bi tijjee ñaati séance ngay def. saison bu tijjee bu man bu ma amee ko combat ñetti séance laay def mais bu ma amul ko combat ñaar laay def. waaw bu ma xëyee dem géej ngoon bi ma dem école ba. daf mel ni yow mënoo xeex dem mbër. yow gars yi xamee wuñ la xeex dem. non mun naa xeex mais xam nga boo munee bëre xeex da lay sonal mun naa xeex. kan moo wax mën nga bëre. non kenn waxuma ko maa ko xamal sama bopp. yow boo mënoon bëre la daan. gaa yi gaa yi xoolal rek kii lamb lamb bi léegi ñëppay daanu de amul mboor bu dul daanu amul dangay daan ak ak si niñ lay daanee boo déggee sànq ma insisté ne la ndax yaa ngi entraîné sa avant dernier combat bañ la daane c'est waa ko ñëpp a xam ne entraîné woo non boobu maa ngi doon entraîné daa am lu manqué woon ci combat bi te combat bi dafa jege woon presque vingt huit jours lañ ko jàpp xam nga loolu dafa métti waaw moo tax ngay jël combat 28 jours lan lan moo tax sa niveau moo toll foofu wala yow da nga mën a bëre wala da nga wóolu sa bopp. non man pour man li ma jàppoon mooy combat 5 jours sax war naa ko mën a jël ndax man ndaw laa. mais combat 5 jours ku koy jël dafa war a dafa war a pare chaque jour mu nekk en forme waaye sa waa koñ nee nañ yow doo entraîné. ah gars yi loolu dañuy wax rek loolu dañuy wax rek pour. loolu waxuñ loolu waxuñ loolu moo am ndax man ak yow ñoo dëkk mbër dooy entraîné. non gars yi dañuy wax pour ma yokk entraînement yi rek. loolu la quoi xam nga nit moom bu la buggee chaque jour day wax pour nga yokk waaw. saa kan moo nekk sa kanam. esaay nii nii nii nii man nag euh, Baba Jaxal buñ ma ko joxoon kooku moom a gënal quoi nañ ma ko. Baba Jaxal mel ni. Baba wala Ardo. wala Ardo. waaw. ñoom ñoo la ba nga bëgg a jël Baba Jaxal ak Ardo. non dara dama bëgg a dem rek. waaw loolu la quoi kenn conseil wu maa xool ne xam ne ñii war naa bëri ak ñoom. Baba Diakhal diisul si yow. man benn mbor diisul ci man. waaw bu ma amul Baba Diakhal am ardo rek. mbër Baba jaxal day dóore de est xam nga loolu. ah kaay dañu soobu rek ay mënuñoo door dañu soob rek. waaw. soit bi aussi la moo tax mu nekk ardo non maa xool ne ñoom ñaar ñoo yëpp war naa mun a bëreeg ñoom. waaw bu ma bëreeg doon ñoom léegi tamit dinaa bëreeg ñoom ci kanam. waaw loolu force la. ñaan ñooñu rek nga gisagul Baba Jaxal wala Aada. non bari nañ bari nañ kii Big Diop. Big waaw Big Big Diop combat waaw bu yëmbal. bu yëmbal waaw combat jaadu la. <laughs> mbal xoolal ñu lay seetaan nga wax ak amateur yi Big Diop nga soxla. waaye maag Big Diop combat la. jaadu. waaw Baye Ma Ndiaye bi tamit combat la moom waaw. <coughs> man ñoo ñëw sama catégorie. kon kat mbër yooyu daal nga singileegu. waaw. Baba Jaxal Ardo Bib Diop ak Baye Ma Ndiaye. ñooñu laa war a bëril. léegi jàkkaarloo ñoom nga wax ak promoteurs yi. promoteurs yi dem leen seeti ñooñu man avance bu ñëw ci ñoom ma jël. waaw ñoom buñ ma joxul avance sax ma jël leen garaawul. yow pare nga nii. pare naa waaw. pare naa pour bëreeg ñoom de waaw. physiquement. physiquement moralement mystiquement lépp. Diop day dóore de. saa yi ñooñu yëpp mu ñu ñëw. attan nga Bib Diop sax. kooku déggoo li moo la wax. combat bu taaxoon tey tey tey tey tey tey su ba ma bëri ko waaw. ndax saison déwén. non ñu ngi maa ngi koy préparer ak sama staff rek. waaw lépp lu ñu wax daal ko def ba ñoom laay déglu rek. man daal entraînement lañ ma sas. li des yëpp yëpp yëpp ñoom ñoo koy doxal. waaw xam ne làmb ginnaaw mbër ginnaawam nan la demee. ginnaaw bi métti na méttiwul ndax boo gisee maa la métti na am na loo bari loo xam ne ñun amuñu ko ci làmb. mooy lan. moyen bi moyen bi mooy dangay am combat dug oto di dem ni ngay booy may bàyyi ci ginnaaw nga xool leen xam ne ñii mënuñoo jëral seen bopp billet te doo gis ku la jàppale ci billet yi. côté boobu métti na métti na trop loo tax may woowaat gars yi ñoom ñëpp ñu ñëw pour jàpp ci billet yi bu ñu amaatee ko ma man ñaanuma kenn mu yëkkati xaalis jox ma ñan ma jëndal ay billet waaw. ñu jugee foofu. choix bi lan moo tax mu nekk Mame Ndiaye Savon lan moo tax nga jógee si usine technique ñëw tuddee sa bopp maam Ndiaye Savon. waaw côté boobu dinaa sa war a tontu. ndax boo gisee ma jël sama bopp tuddee ko Mame Ndiaye Savon man jàmbaar la te jàmbaar day bugg jàmbaar maam Ndiaye dama ko xool mu nekk jigéen jigéen bu mun góor. dama ko dama ko xool mu nekk jigéen bu mun góor bu ko neexoon mu toog dépendre ci góor yi mais moom deful loolu liggéey bu mu jotee dama defar laxasu dem liggéey yi dégg nga loolu tax ma xool ko ba mu neex ma ma tuddee ko sama bopp te ke bu ma ko tuddee sama bopp ba léegi rëccu ma ko. ko genre comprendre ma ñi lay seetaan. da nga da ngay gisanteeg Mame Ndiaye Savon wala da génne si ay situation wala lan. gisante wu ma moom Mame Ndiaye barke demu laa xam ne Pikine la dëkk mosuma xam fu mu dëkk sax yoruma ni am tamit mais premier jour bu ma defee vidéo ne changé naa usine technique fils de Mame Ndiaye Savon laa tudd ah, dugal ko TikTok ci TikTok bi jour boobu xoolal bu ma duggee ay ay nombre de vues laa gis gars yi di ma envoyé ay message fu ne. am na nitu làmb bu mag bu mu envoyé message laaj ma sama numéro ma jox ko ko mu ne ma ki nga tuddee sa bopp de tudde nga tudde nga sa bopp ku jara tuddee boppam ma ne ko lan moo tax nga wax loolu mu ne ma kii jàmbaar la defal liggéey dafa ñefe Sénégal kenn kenn du ko fàtte ma ne ko waaw mu ne ma góorgóorlu te nga respecté entraînement yi waaw boo amaatee combat yàlla may la ndam loolu kese moo tax nga tuddoo tuddee sa bopp Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye Savon guerrier la day liggéey jàmbaar la jigéen ju mën góor loolu kese moo tax nga tuddee sa bopp Mame Ndiaye Savon. waaw looloo tax ma tuddee ko bopp dëggoo li moo la xanaa man jàmbaar laa man bu ma gisee jàmbaar dama koy bëgg dama koy naw respecté ko. usine technique bi nga njëkkoon a tuddee sa bopp kooku ñëpp ko ràññee si làmb ñëpp ko ràññee si làmb ñëpp xam ne kooku dafa mun bëre Mame Ndiaye Savon du bëre day jaay saabu day liggéey wala yow tur bu Mame Ndiaye Savon am moo tax nga dem ba gis loolu tuddee sa bopp Mame Ndiaye Savon pour am tur wala lan la. wallaay du kees yoo am tur du kees yoo am tur xëy na sama diggante moom yàllaa ko def yàllaa def ma gis ko bugal ko sama bopp tuddee ko sama bopp waaw mais du kees yoo am tur usine technique bi huit combats laa ci bëree ñëpp a xam ñëpp a xam. nga am si ñaari defet am ci ñaari defet mbër ragal naa nga tuddee sa bopp maam Ndiaye Savon yàlla tere yàlla tere Mame Ndiaye Savon dalay dalay defal live te live la lay defal naan mbër boobu noonu ba mu tuddee boppam ba léegi day daanu nii ak nii ak nii est que xam nga Mame Ndiaye Savon naturellement ba dem ba di ko tuddee sa bopp. waa xam naa ko nii rek xam naa ko nii rek mais loolu garaawul loolu du dara ndax ñun xam nañ suñu bopp xam nañ ne bu ñu amee combat lépp lu ñu mun dañu koy def. mosoo gis maam Ndiaye Savon. wallaahi mosuma ko dégg bët. xamoo fu mu dëkk. déggoo li moo la keroog laa xam ne Pikine bii la dëkk mosuma xam ne Pikine la dëkk. bëgg nga gisanteeg maam Ndiaye waaw bëgg naa ko gis nag ndax nit boo ko déwee ba tuddee ko sa bopp rek war nga xam ci li mu nekk. waaw bëgg naa ko gis waaw. di ko nuyu tamit di ko ñaanal. waaw liggéey bu mu nekk nii yàlla yokku ko waaw ndax man loolu la am ci moom. acca mi ngi noonu gars yi ah am na benn mbër bu bees boo xamante ne dafa gis maam Ndiaye Savon rek bëggal ko boppam mu tuddoon usine technique léegi nee na fils de Mame Ndiaye Savon la tudd moo toxoon tey ñu ñëw seetsi ko ñu xool nu muy préparé saison déwén bi ak la moo toxoon mu tuddee li nga xamante nii boppam Mame Ndiaye Savon loolu moo ñu fi andi woon tey dañ koy bàyyi mu mu mu mu woote parce que asamaan si dafa xiit te sama caméraman fi mu ñibbi dafa sori balaa muy tawte mbër ñu bàyyi la nga woote. waa diwoo ñépp diwoo di ñëpp surtout waa Dalifor ndax fii laa teg fii laa yeewoo di nuyu nag ah, ñoom Pape di jël nuyu bi teg ko ci loxom di nuyu di nuyu ah, papaam ak yaayam ndax bu ma amee combat ñoom dañu son ci man trop trop waaw di nuyu sama koñ koñ bi ma dëkk nii. booy yi aw ma seen fay booy yëpp yëpp yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di nuyu sama dëkk jaxaw di leen nuyu bu baax a baax a baax nuyu sama village Saaraar di nuyu nag suñu euh, maire Badara Ndiaye waaw ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu seydaan euh, maire de jaxaw maa leen bëggee bu baax a baax di nuyu Maringom ay jaara di nuyu sama salti yu jóge Njaay bu baax a baax a baax di bëgg sama mafia bi ñoom Malal a ah, ñoom Ibu ñoom moo ci la bàyyiwuma kenn daal bu ma limee damay juum di leen nuyu nag yéen tamit waaw waa Wassare jël nuyu bi di ko teg si sa loxo Xalil waaw di leen béggee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm waaw loolu laa amoon lu ma tàggatu. acca mi ngi noonu gars yi tey kan lañ seet si kooku moo di fils maam Mame Ndiaye Savon nee na tuddatul usine technique affaire bi sax na si xeex léegi. da ciy xeex ko ko waxati usine Teni mu ne tuddutuma usine Teni les fils de Mame Ndiaye Savon laa tudd léegi nag Mame Ndiaye Savon ñu ngi lay waxaat ne Dalifort am nga fi benn doom bu bees mi ngi tudd fils de Mame Ndiaye Savon usine technique la tuddoo nee na tuddatul usine technique léegi mi ngi tudd fils de Mame Savon acca gars loolu la leen andiloon fii nga xamante ne moo di wasaare làmb tey nag ñu ngi woon fii nga xamante ne moo di Dalifort seet si ki ne moo di usine technique ngeen ànd see xalil ak ki nga xamante ne moo di mbay di leen jox dig daje ba beneen yoon si beneen mbër ak fii si wasaare lambo